révision exceptionnelle bu liste électorale curieux mooy ku nekk xam na ni décret ba pour élection présidentielle la te élection présidentielle kenn umpalewul ni élection bi gën a mobiliser taux de participation la kenn umpalewul ni ci élection yi am Sénégal mooy élection bi ci gën a soxal sénégalais yi nan la ñuy waxee ni dañuy def révision exceptionnelle des listes ñu génne décret bi nga xam ni révision boobu ci benn weer képp lañ ko prévoir 6 avril 6 mai benn weer alors que ku nekk xam na ni ñi am 18 ans wala ñu wal am 18 ans ci élection bi ñu jëm ci biir Sénégal macha allah bare na te ku nekk xam na ni fi mu toll nii ndaw ñi danoo bëgg changement ku nekk xam na ni ndaw ñi danoo bëgg am temps ñu nekk ci biir réew ak ci bitim réew pour mën a dem inscrire pour mën a participer ci élection présidentielle bii nu jëm mais le président Macky Sall lépp lu jëm ci primo votant pour moom dañ ko war néewal ci fichier électoral parce que xam na ni primo votant yi ànduñu ak moom du ma wax sax primo votant yi mais xam na ni sénégalais yi ci seen écrasante majorité ànduñu ak moom léegi comment on peut expliquer ak élection présidentielle ni mu amee solo nga ni révision bii di am ci élection présidentielle bi du weesu lu dul un mois loolu nag ñoo ngi ci interpellé ñi ñu bokkal politique bi yëpp di ci interpellé société civile bi et c'est wax certains comme Ndiaga Sylla commencé nañ ci poser ay questions mais dañu woon leen ko bañ wax parce que xam ngeen bëgg élection bu libre et transparente élection bu inclusive képp ki nga xam ni am nga 18 ans war mën wote war nañu mën ubbi ay commission administrative ci diir bu doy commission administrative yooyu yegg si fu ne pour nga inscrire pour mën ci élection présidentielle yi ñu dem nga tànn le candidat de ton mais li mu def tey wane na ni buggul ndaw ñi bindu li mu def tey wane na ni bu buggul ubbi fichier bi lii mu def tey wane na ni taxawul ci élection yi libre et transparente kon loolu dañ ni woon daan leen ko wax